alors lan lañ xëyee tey ci wàllum température et tout Miss maa ngi lay nuyu di la ziar mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm ju bëri sax na naata maa ngi lay fay. bonjour à la team et bonjour à nos chers téléspectateurs vous souhaitant également un très bon début de semaine donc soxna naata. Mhm. bu ñu euh, jàngee carte bi rek le climat ne change pas c'est-à-dire toujours de la mousson ca bët saalumu réew mi c'est-à-dire. Euh, ngelaw la boo xamante ne euh, géej lay jógee dafay indi humidité donc ça ramène la pluie sur la partie sud du pays au nord moom euh, l'harmattan moom mi ngi commencé dugg si jógee bët gànnaar parce que le vent souffle de dans ce sens du moins ouest bi ni lay def et puis de nord à ouest du pays donc ça fait deux climats ci benn euh, dans un même euh, dans un même pays donc pour les températures ce matin ñuy tàmbale 24 degrés boori Kédougou 24 à Louga 26 ci Saint-Louis euh, côté Matam ñu fay xaarandi 27 degrés 27 degrés également pour Matam 25 26 Sédhiou Kolda et puis Kaolack tamit ñu ngi fay xaarandi 26 degrés digg bëccëg bi comme je l'annonce rek armatan bi on va voir ça les températures sont un petit peu plus élevées sur cette partie-là donc c'est le nord du pays 38 la maximale boori Matam euh, sachez également que Harmattan bi de ngelaw la boo xamante ni c'est sec euh, à la fois et puis ça permet de sécher d'assécher euh, récolte yi fi mu toll nii enfin récolte les se li ñuy se li ñuy ji pour mën ko euh, récolter instant bi nii l'Harmattan il sert à ça en ce moment ça arrive du nord et puis c'est en train de gagner du terrain euh, sur les trois quarts Euh, du pays au sud toujours même ambiance maanaam ay taw yoo xamante ni mousson bi moo koy waral sont en train de disparaître petit à petit taw bi mu ngi dem euh, yoonam nànk-nànk côté température de l'après-midi 34 degrés Euh, les minimales boori littoral bi Saint-Louis également 35 à Kédougou 35 au centre 36 ca Ziguinchor 38 degrés euh, boori Matam mooy nekk température bi gën a kawe mook Louga ñoo ànd d'ailleurs donc on s on s'hydrate ba tey la bouteille d'eau elle ne change pas 1 litre 5 par jour pour éviter la déshydratation ñu dem géej 3 heures 24 géej ji feesoon na euh, bu ñu toppee bi 9h58 16h20 et puis 22h08 tamit marée bi dina dina daal di mu wàcc ci géej gi bu baax la bonne heure de pêche est comprise entre nii la ça se passe maintenant 7h19 9h19 bon amatul intérêt torop torop mhm. baa ngi noonu pour euh, les plus téméraires qui moment et puis euh, la hauteur des vagues moom ci presque 2 mètres aujourd'hui pour les surfeurs pour le soleil naturel lumière naturelle du jour 7h02 donc euh, bët bi set na 18h45 incha allah ci lay daal di euh, làqu rek comme ni koy defee saa su ne ngi noonu ñu un deuxième bulletin. ci kanam ci kanam ci ñaareelu pàcc bi waaw ma tënk ko. daa tuuti de. <laughs> si si d' ailleurs oui xol yi dafa tàngoon parce que il faisait très très chaud. mais dafa ñetti fan yi mu ngi commencé feex. Mm. Euh, mi ngi dal. Mm-hmm. ça fait ça fait du bien xol yi feex na. mi ngi mm. feexaat tuuti. on espère que ça va continuer incha allah. à tout à l'heure merci beaucoup Miss Sambou ba ci kanam incha allah ci météo bi en express ñu jàll léegi léegi ci de quoi est-il le